grand kontaan nañ ci euh, ñu ngi leen ñi ñi ñi am contentement ci yéen di leen sant bu baax di leen gërëm euh, di wax euh, aussi Modou Gueye li mu doon jéem a def baax na mooy nettoyer bassin yi loolu baax na mais boo nettoyer bassin yi ba pare jël li nga xam ne moom nga nettoyer sottilaat ko askan bi ba nga xam ne tali oto yi mënatuñoo jàll ay jaan ay yeew lépp di fi génn suñu doom yi wóolootuñ sax bàyyi leen pour ñu dem foowi ji xam nga pour man tey lii nekkuloon tey lii moo taxoon tey ñu jëlee fi Cheikh Dieng teg fi Modou Gueye yaa ngi dégg ndax yaakaar naa ne njiit boo ko nekkee da nga war a yemale ñëpp mais Modou Gueye sax amatul jotu mairie bi Modou Gueye amatul jotu jide caaroy kaw ndax beneen poste la doon yóotu tey bi mu ko amee tay mi ngi dem impôt et domaine nekk foofu yaa ngi li taxoon nag ñu fal ko mooy mu ñuy defaral di ñuy saytul suñu jaboot di ñuy saytul suñu askan mais loolu lépp fekk ko ci dañ ko fal xam nga mu passé à côté dem bàyyi fi askan bi dem yoonam li nga xam ne nag mooy li ngeen gis tey camion yooyu ñëw fi di ko nettoyé ñun waa koñ bi dañoo génnoon waxtaan jël suñu décision bopp ferme yi nga xam ne tey moo nekkoon dernier délai lañ joxe woon. décision yi ñu jëloon mooy tey bu ñu ñëwoon delu lii amul benn camion boo xam ne dina fi taxaw wa ilaa tey moo am benn benn poclain boo xam ne tey dina dugg ci biir di nettoyer tey dañoo waxoon tey poclain tey bu duggoon ci biir di nettoyer dañuy ñëw arrêté machine yi ba ñu ju nag dara ba ñu ju woon dara tey moo nekkoon dernier délai bi tey lii bu ñu ñëwul dindi ko bu ngeen ñëwee leneen ngeen fi fekk mais lu demee nii. jafe yi moom weesuwul mooy tali bii nga xam ne oto yëpp dañ fiy tegee diiraa une semaine a ngi nii oto yi mënuñu jàll ndax lan mbalit ñu fi teg tey imagine toi tey ñu jël mbalit bi sotti ko tey ci canalisation bi nga xam ne moom moo nekk tey ci kaw tali bi tey bu tawoon yàlla day def tey maanaam ñun ñëpp ñu ñi dëkkee ci côté Basse yëpp tey dañuy inondé te yaakaar naa buñ ne la liggéeyal liggéey da ngay liggéey pour sa askan mais Modou Gueye ñu nekk ak moom sax waxuñu ko dëgg waxuñu ko dëgg mooy daf leen a jiital leen ci commune bi ñooñu tey lépp loo xam ne ñu ngi koy def mooy dañuy dem nekk fële nekk ci leneen bu ñu toogee jël seen téléphone di ko wax naan ko maire fii lépp moo ji fekk amaane lépp c'est pas bon. waaw ñu jàpp mooy maanaam bassin yi yi nga xamante ne moom lañ def fii moom lañ bëgg gars yi ñettiwaale ñu ko amaan dañ ko fi defoon pour sécurité mais mun naa wax ne daa dem ba mujj di indi loraange xale yi fii lañuy ñuy jot na am ay moor te loolu nag dafa war a mën a dakk mbalit bi nga xam ne dañ koy jël def ko fii c'est bien beau mais mu amaan na mënoon na gën a rafet. li daal ñi ñaan mooy en tant que comme ki nga xamante ne moo fi nekk maire Modou Gueye ngay ñaan mu defaral ñu fii mu defar fii amaana su ko defaree loolu ndamam la parce que bañ kay fal dañ koo fal pour mu defaral ñu sunu sunu sunu dëkk sunu gox mais dem nañ ba gis nga xam ne ni moom amaana li muy def dafa yéex lool dafa yéex trop dafa yéex ta ñun ñoo ngi ko doon séentu feneen quoi fudul fii. non gisaguñ dara parce que période campagne bi dafa waxoon ni su toogee dinañ defaral fii. mais dafa fi dara gisuñu ko gisuñu ko suñu gisoon ñu wax ko mais gisuñu fi dara loo xamante ne amaana na xam nga ñun teg nañ suñu bët gisaguñ dara. rëccu nañ dara quoi ni nga fi tegee moo wax dëgg dafa ko quoi te ñoo ko doon séntu feneen quoi. lii naqari mooy bassin bi ndax moo duggee dafa newoon su ma toogee dama leen di defaral fii bu mu fi toogee def fi dara kenn jëmeetul génn benn instant da ngay war am sa soxla war koo dox sax doo ko dox da ngay mujjee laf nga toog. ku am sa mbalis bu salte fii nga koy këpp ku am sa xorom ñooñu fii nga koy këpp agresseur yi bëri na dangay am sa soxla war koo doxi doo ñemee génn yaa ngi dégg ñeme woo bàyyi sa doom dem fooyi ndax fii dafa salte ku am loo war a agressé fii ngay làqat si salte bi ku génn ñu agressé la dégg nga boobu ba tey amuñu jàmm amuñu salaam lamp yi tàqul fii daal la dem kiris Modou Gueye bu mu toogee def fii tous du tous lu mu fi def si xale yi ñeme wuñu génn ñeme wuñu fooyi ku génn fajar di liggéey ñi agressé la nangu li nga yor waaw. mbalit mi ñu sonn nañ suñu doolee jeex na dégg nga mbalit mii xet bi ko noyyi sa baaxul gunóor yi sañ ñoo añ sax suñu digg kër yi wóor na yàlla sañ ñoo añ suñu doom yi tamit fajar la ñuy xëy agresseurs yi duñu leen di agressé mbalit mi daal suñu ci mënoon dimbale nañu ci dimbale te yàlla tax sonn nañu sonn nañu sa au secours sonn nañu. maa ngi présenté wu maa ngi tudd madame le maire Adji Kodouka présidente de la commission environnement et cadre de vie. de commune de Djiddah Thiaroye Kaw en même temps présidente du COLIGEP. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di di nuyu population Djiddah Thiaroye Kaw encore de plus si sama tur ak si turu maire monsieur le maire Mamadou Gueye di wax ne tungu ne du teew ñuy nataal yàlla def na ba ngeen ñëwee da ngeen fekk ñu nekk en plein travail lii ñu def nii c'est grande première dans la commune de Djiddah Thiaroye Kaw depuis bassin yi nekk fii ba léegi kenn masu ko fokaarde maire yi fi nekkoon dañ daan dagg ñax bi bàyyi ci biir muy damewu population bi di sotti mbalit muy damewu ci biir bi ñuy demee di taataan baatu askan bi population bi ne woon ñoom seen doléance première mooy nu ñu defee ba setalal leen bassin yi ñu ñu ñu daw fu nekk dem à travers l'ONAS dem fu nekk mu mënuñu am satisfaction si lañ mujj maire jël ci budget maire bi c'est son budget propre mu jël ko pour focarder les bassins de rétention ñun biñ koy focarder xamuñu ne woon ne sax mbalit mi nii la tool mais buñ koy génn à chaque fois bu machine bi duggee si biir bu tibbee bu tibbee bu jéqee mbalit mi day gën a jéqatikuwaat loolu moo waral tonne d'ordure yi la mairie woo UCG pour mu jàppale ko ci évacuation bi UCG trois camions la indi la mairie renforcée que de quatre camions camion bu nekk def trois rotations par jour ça lui vingt et un vingt une rotations par jour mais UCG ku nekk xam na ne du Djidda rek lay intervenir dans la commune de Pikine day Djidda day intervenir Djidda Pikine Nord feneen ak feneen parce que si nawet lañ ne mais pour jàppale Djidda moo tax ñu ne dina ñëw deux fois par semaine pour jàppale ñu ne ñu ne leen du ngeen wéet ci liggéey su ngeen ñëwee bu ngeen indee trois camions ñun dinañ ci dolli quatre camions appuyer leen en gasoil jël ga ñun camions yi ñoo ko fay maire bi moo ko fay jël gasoil bi appuyer la machine muy muy pelle mécanique bi pour que ñu mun a tibb foofu la liggéey bi toll. comme ni ma ko waxee nag damay massawwaat population yi parce que ku nekk xam na ni dëkk ak mbalit neexul mais suñu xoolee ay at ci ginnaaw gis ne dañ daan romb bara diggante bii ak bii daawoo gis sa morom. toog nañ ay année boo taxawee fii doo gis ki nekk fële nga taxaw ci clando doo gis li nekk fii donc lii ñu def c'est une grande première et je défie quiconque ku wax ne lii mas na fi am. moom xam nga seen bëgg-bëgg lañ am mais commune dafa am nu muy doxee tey lii biñ koy def dañ ko jox entrepreneur suñu neexoon ñun en tant que commune ñu ne fay nañ entrepreneur bi sama yoon nekk ci dañ koy bàyyi rek ba mu pare liggéeyam mais bi ñaxtu bi paree baree da par et d'autre si lañ gis la mais toog waxtaan ak moom ñu ne UCG nan lañ la mun a jàppalee pour lii gaaw mu ne ñu renforcer leen ñi moo loolu moo waral tey ñu renforcer leen en quatre camions ñu ñëw dañ koy def tey def ko suba heure bu UCG dellu si waat heure bu ñëwee rek heure heure bu ñëwee ñun ñu dinañ leen renforcer mais yéen ñii xam ngeen mbalit bi sa mbalit bu spécial la ñun même en tant que commune suñu bëggoon chaque jour que jëfee ñu tibb camion suñu demee mbëbës duñ ko fa sotti parce qu'il faut une ordonnance spéciale pour mun a tuur lii parce que mbalit la bu jaxasoo ak barax de ce fait ñun bu heure bu UCG taxawalee camion ñett comme ni ma ko waxee ñu taxawal ñeent wala lu ko ëpp suñ taxawalee juróom ñu taxawal juróom wala lu ko ëpp mais nag il faut donner le temps au temps même même ñëpp la ñuy defar dañoo prévoir buñ paree fii dem Bagdad focordé ko comme ni dem bassin Aynoumane bi defar ko encore une fois de plus ce sont de gros travaux pourtant ñun mënoon nañ ne xaalis boobu mun nañ ko def ci éducation wala ñu def ko ci leneen wala leneen mais dañoo xam ne lii daf ñoo itteel cadre de vie bi te on ne peut parler de cadre de vie à Djidda Thiaroye-Kaw sans parler des bassins de rétention ma leen yëgal ne ñun yemuñu ci liggéey bii rek